sunu carte wi ci sunu poos ñu wate ko wi ci sunu gémmiñ ñu denc ko te ñibbi kenn ku ci nekk rekk boo defee sa devoir te mooy tànn ki la doy débal nga ñibbi soo àndeek cinquante nangam pour cent ku ngeen bokk tànn bu timisee ca dimaas ja ngeen ne wiiw bu fekkee lu tol ni loolu àndug tag yow ca la ngay tànn nga muñ te xam ne c'est pas la fin du mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci nag seen njaboot tabarakallahu ni ma ko diggee woon mooy ñëw ci ñetteelu saar wi doonte alxuraan jëpp nag luy defaram penc rek la ci yàlla di waxtaane luy defarum pénc rek la cal di waxtaane dafa am jëmm jamono joo xam ne dafa mosoon a xew ca Égypte waaw dafa xewoon ca Égypte moo di boo delloo ginnaaw ci sunu maam Ibrahima alayhi salaam amoon na doom ju tudd Ismaayil am doom ju tudd isxaaq doom ju tudd isxaaq am doom ju tudd yaaxuub ak ju tudd iisu doom ju tudd yaaxuub am yuusufa ak ay bokk bokki baayam ñu mbokkal baay ñooña añaane yuusufa cër bi mu am ci seen baay ak ni ko seen bay bëgge daldi koy jël takk tànk yi ak loxo ya sànni ca teen ba ndax bëgg mu faatu sunu borom mi sàmm nit wallahu yaasimuka min annaas daldi koy sàmm ba ba ba ay commerçant yi ko ca teen ba yóbbu ko Égypte jaay ko bañ ko jaayee la ca xew-xew ca digganteem ak ndaw sa ba mu dugg ca kaso ci kaw erreur ba mu nekk ca kaso ba ba kaso bay jeex ba mu génnee jëli doomam doomi baayam ya ak seen tàn ak tàntaam ak bàppaam indi leen Égypte waaye Égypte bi bi bi bi yuusufa génne àdduna ñu tàmbalee bu mbokkam yi nga xam ne ñoom duñu dorisin ñu nga jóge fële ca Kanaan tabarkàlla walla ca Palestine bi coow li baree nag mbugal mi métti lool sunu boroom xam ne lii reyante du ko sottal ndax firaw na ëpp ko doole yombut leen rek moo koy mën a sottal mooy engagement politique loolu rek ko mën a sottal engagement politik mooy mën a sottal mooy mën a teggi lii Firawna di teg aw xeetam waaw sunu borom indil ci saar woo xam ne nag loolu rek lay jàngale tabarkàlla ak lam ca teg waaw waaw <laughs> saar baa nga tudd al alxasas waaw noonu la saar wa tudd waaw mu ngoog saar wi mu ne yéen ñi nga xam ni yéen na ci pénc mi moo xam politicien la moo xam ab sëriñ la moo xam ci politique camarade de parti nga moo xam secrétaire général lu parti nga mu ne mu ne déglu leen natlu aleyka min nabai Muusa wa firawna bil xaq waaw yàlla mu ne dama leen a bëgg a jàngal loolu balaa ngeen dem ci élection yi waaw balaa ngeen dem ci élection yi mu ne mu ne yóbbu yóbbaale leen naba u Muusa ak firawna na ngeen ko yóbbaale naba u Muusa ak firawna ngeen fexe ba yéen politiciens yi ngeen bañ a nekk am na yéen ñi nga xam ne yéene tànn wala ngeen di falaka fali ngeen fexe ba doon ay Muusa yéen politiciens yi waaw ñaar ñooñu Muusa am ak na lanu yàlla bëgg a indil ci saar wu am solo wi waaw waaw dana nag lii muy wax nii nag du jenn waay bu toogoon rek bind benn romance yi déedéet lii daf ko def bil xaq dafa masa am inventé wuñu ko mukk dafa masa am te ku am gëm gëm ne mas naa am sunu mbokkum daara oustaz Aboubacarine jànq yàlla na ko yàlla yokk wér te soqali daaraam waaw imam Bukhari <laughs> bu la ma see jàppal saar wi daf ko def mu tudde ko ak tawxiidu tatbiqi nun la ko tudde waaw tawxiid pratique waaw nun la ko tuddee waaye tabarkàlla wax na dëgg ndax daa am lu xew ca pénc ma yàlla samp ndënd ne gaa yi su ngeen ko songee bàkk ma ma jàppale leen ngeen daan ko Sëriñ Cheikh nu koy wax mënu ko daan wax yàlla nag dafa bëgg présenter na ba noppi na li yàlla bëgg présenter ba noppi bu ko présenté ba noppi nag da di indi nag Moussa ak bu bu doy waar bi waaw Moussa ak bu doy waar bi départ bu xeebu waaye arrivé bu rëy Firawna départ départ bu rëy arrivé arrivé bu xeebu waaw yàlla bu suñ politiciens yi nekk ay Firawna nag waaw <laughs> yàlla na ñu nekk ñëpp ñoom ñëpp ay Moussa te mooy gis lu normalut nga jéem ko normaliser ba mu normal waaw lan moo doonoon jikkoy na yàlla moo nu bëgg a présenter na présentation bu mucc ayib ndax ragalu ko ba di ko sosal ay yëf di ko tagg ak def yëf mukk waaw daf ñuy wax rek mooy kan ci la ñuy xamee ci la ñuy xamee ne yàlla tabarak wa kum làq nga nga ñoŋ kum jàppale nga man kan mooy firawna inna firawna ala fil ard loolu la ko njëkk a loolu la ko njëkk a melale firaw na ku ku xamadi la woon waaw firaw na ku xamadi la woon ala fil ard xamadina def nay pexe ba jot ca pouvoir ba toog ca gàngnaay ga rekk tabarkal loolu mooy jëkkoom ji njëkk yàlla boo ko benn politicien mel ndax béw baaxul ci pénc moom la yàlla waxoon sallallahu alayhi ca leçon yu njëkk ya innal insaana la yatxaa an raawu istaxna bu la falu mukk taxa bax taxa bew bu la am lu gaa yi amul taxa bew bu la xam lu gaa yi xamul taxa bew bu la man lu gaa yi mënul taxab bew mukk waaw bew baaxut inna al insana la yatxa rawu staxna inna ila rabbika rujaa te ñëpp a ñibbi <laughs> ñëpp ñibbi ñu takk say tànk laxas la perkaal waxi mbax dugal la ca dem ñibbi toggi ceeb mel ni kuy noos waaw tabarkal la cëy inna firawna ala fil ardi seen sikka ngu noonu su yàlla wane ci firawna ala fil ard te loolu waru ko ndax gan la ci suuf si ni fi ñëpp nekke gan ana kañ la fi ba mën a beew beew gi xaat ba mën a beew beew gi xaat ana kañ kañ la fi waaw la boroom xam-xam boo xoon Arun Rachid amirul mu'minin lay seet mu ne ah kañ la ko doon amirul mu'minin lay seet mu ne kañ la ko doon waaw sunu mbokkum daara fàllu siise nee na nit day xam lim doon ak lim nekk li nga nekk jamono ngi ñëw dutoo ko nekk li nga doon nag day ànd ak yow rek tabarkalla inna firawna ala fil ard loolu lay senn sikkus euh, firawna mi nu yàlla yi présenté ñaareelu sikkam wa jaala ahlaha chia loolu mooy ñaareelu sikk bi mooy daf dafa pàcce pàcce réew ma ñee mu tudde leen na le ñee mu tudde leen na le leen na ñee am na lu ñu sañ ñee am na lu ñu sañut tabarkal rek waaw ndax loolu ci pénc mi waa pénc mi moo koy tuddee démocratie waaye bu nu ko seetoon ba seet ko bu nu ko seetoon ba seet ko tur wi ñu koy jox dañ ko wutalaat weneen tur ñu jàpp ne parti yu bari mooy démocratie te ku am parti ku ne sañ ngaa wax te wax ji am na ci yooyu du defar waaw am na ci yooyu du defar noonu la firaaw na defar muy deuxième sikk yu ko yàlla yu yàlla wane ci moom wa jaale ahlaha chia réew mu amoon ñaari parti ni ñuy noppaloo waaw wala bu bëree bëri juróomi parti juróomi parti waaw bu bëree ba bëri ku dugg ci benn ni ñu ko defee ci élection yi baax na de ku nag dem ci benn coalition coalition nangam 2019 rek mënoon nañ koo continuer xaw ma nag nu muy demee waaye bu jógee ci <laughs> buñ jógee ci wàññi xob yi wax dëgg yàlla war nañoo toog ci taabal ñun ñëpp ñu waxtaanee. politique bi pénc bi ak parti yu bari nuñ koy wàññee waaw waaw waaw wa jaala ahlaha chia mu def pénc ma mu nekk ay parti su parti yi baree te coalition amul kenn mënu ko wàcce loolu ñaar lu sikkam yàlla nu koy wax yastadifu taifa minhum muy ñetteelu sikkam mooy dafa am taayifa boo xam ne muy mbokk yuusuf yooyu ak lëñ jur ak ña bokk ak ñoom ñépp ma nga leen di noggatu yustadif ma nga leen di noggatu noggatu bu métti nag yëmul ci jël seen alal yi yëmul ci nangu seen kër yi yëmul ci nangu seen teere yi yëmul ci yooyu de waaye yu yusabbixu abnaahum mu tëral benn benn xeetu planning planning familial boo xam ne day rey góor waaw liir bu juddu di góor rek ñu sàkkal la pexe saas-femme bu ñëw wane ne rey nga juróomi liir am na looy am ku rey fukki liir ëppale la ku rey fukki liir ak juróom ëppale ko waaw waaw rek tabarkàlla ku rey ba doyal rek def rapport yët ko ku rey ba doyal rek def rapport yët ko waaw ñu la di recruter leen rek ñu wër dëkk bi benn xale bu góor du fi judd walla du fi màgge gis nga pexe mii muy def politicien na ci bàyyi xel politicien bu mu def ay pexe pour toog pexe yooyu bu lay bu ko yàlla jéppee day tax mu fexe ba nit ñi ñeme ko ci duduñu ko wekk waaye ni nga def ba toog fi nga toog fexeel ba yëg ne yàlla mën na la faa jëlee tagaat la feneen nga toog feraw na bi ko techniciens yi waxee lii xew ci seen gisin ak seen euh, yëg-yëg la ne ah loolu kay baax na daal leen di neexal commencé rey waaw booba booba gisaanekat yi mën nañoo gis ndax booba yónneeguñ sallallahu alayhi wa gisaanekat yi mën nañoo gis ndax booba yónneeguñ sallallahu alayhi wa te biñ yónneegul sallallahu alayhi wa sallam assemblée sunu borom ba assemblée bi sunu borom ba almalau daaw ñu ko tere ni fi malaaka yi di ñëwee la fa jinne yi di ñëwee ak ku am pexey dem lu fa xew lu ne mën nañ ko wax waa suuf loolu xewoon na nga xam ne ci lañu ci la ci la gisaane ka ji doon gise waaye bi nu yónnee muhammadun ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëggalunu la daan xew di continuer xew ndax du nu jig mu changé yëf yi waaw jinne yi ñooñu ko doon wax wa anna lamasna samaa fa wajadnaha mulihat arasan sadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'id lisham faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rashada wa inna la nadri asharrun urida biman fi al-ard am arada bihim rabbuhum rashada mu ngi ci suratul jinn yàlla ñu fa àgg ak tafsir insha allah kere bi yàlla naree yónni alayhi salaatu wasalaam la kuppe loolu jinne yi nee nañ fa ñu daan toog di déglu di seetaan assemblée ba ñuy wati ay yëf mu jëm si kaw suuf ñu daan ko dégg di ko indil gisaanekat yi léegi ku dem ci ñun booy àgg rek ñu dóor la euh, lacrymogène tuy nga daw <laughs> waaw xarasan shadidan wa shuhuba waaw jinne yi ñoo ko wax te ñoom liñ ca xam te tabarkalla nun xamuñu ko ca mbokk yi xibaar yooyu ñëwatul waaye xibaar yooyu ñoo ne woon na gone gi lay folli góor la leer mu gane jamono ci siècle bi lay doon rekk mu tàmbali fas yéene rekk ku jur góor rekk mu rey yu sabi am naaw ndaw lu métti ndaw lu metti luy des ji dëkk boo xam ne ay jigéen doom nga fay des ku rafet doon jabari na ku ñaaw doon mbindaan <laughs> xam naa bu fa bu fa nogay nekkoon ba moytul ci mbindaale lay nekk kenn mësu ko gis rek mbokk yi alxuraan mi ngi ñuy nettali lu ama am solo te xewoon ci pinc mi jamono yële muy jamono yi Muusa ak firawna ak place ba Moussa tooge woon nag ba firaw na tooge yàlla di ñu présenté firaw na tabarkàlla te noppeegut jërë ngeen jëf yàlla ñu ba ëllëg te weesu ko yàlla naa def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ko bu subaa jàmm bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy wate yàlla na seddu guy kii gañe gañe ñenn ñu ne ko jërëjëf waaw tabarkàlla sunu mbokk yi xëy ci xibaar ñu ngi ne taxaw yor seen kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar tubaab firiñ ko ci wolof ñaan yàlla yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yi di ànd ak ñun C3S mi nekk ci ri nekk ci croisement 22 tabarkàlla ak gaa yam ko àndal ñoom pën sek tàngal bii di bégee tene ne ci suñuy poos yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.